ñi muy tudd seen tur yëpp da leen di sosal rek. effectivement ñi muy tudd seen tur yëpp da leen di sosal. Mhm. waaw mhm. du lenn loo xam ne am na ko ci. Mhm. waaw bu nañ def ndànk daal instant bi dëkk bi dafa tàng. waxante yu bon yi. mu ngi commencé. ndax lii lu ndaw la am na leneen luy ñëw. am na leneen luy ñëwaat. waaw mu ngi noonu soxna Seyna bu waxoon na waxaat na donc nañu nañu xaaraat comme ni ñu koy faral di defee ndax loo loo def révélation nit ñi nañ ci teg seen bët. donc dañuy dem ci loo xam ne itam yàgg nga ci wax muy élection yi eh, jege si na mën nañu wax ni eh, ay fan moo ci des ay heure sax laay wax fan yi bareetul ndax dimanche lañ ko fas yéene doxal fii ci Sénégal. Hmm. Eh, lan nga gis ci élection yi fii ci Ndakaaru ak yeneen gox yi nga xam ne jàpp nañ ne dafa am euh, dafa am intensité ci élection yi ñu jëm. waaw gis naa ne daal dina xaw a doy waar. ok waaw ndax nit booy wax dangay ngay wax li nekk. Hmm. après rek li yàlla di def moo koy def. moo koy def hmm. ndax gis naa Barthélémy fi mu taxaw actuellement. fu baax wala fu. waaw ah ba fi may waxanteeg yow nii de gisuma ci moom ne moom moo war a gañe dara. Ah, ok. waaw mais rek comme léegi dëkk bi yow da ngay gis dara nit jóge fee changé ko. wëlbatiku waaw mën na mhm. nekk mhm. tey ki bëgg mën na dem ut ñaanam def la changer affaire yi mais man ba fi may waxee ak yow nii gisuma ne moom war na am dara daal mhm, moom waaw loolu gis naa ko ci moom ok bu jógee rek def ay ñaanam ba ko mën na nekk waaye bu fi may wax ak yow gisuma moom ci moom benn ndam ok waaw kon gaa yéeg nañ ci kawam bu yàgg a ah, mën na amit mu dellu tourné waat affaire yi ndax Sénégal la ñu nekk mais ba fi may wax ak yow nii. dara am sotteegul. bokk ok nga xam ne Barthélemy ak ab Abdoulaye Diouf Sarr daanaka ñoo gën a fës ci mairie bi bu Ndakaaru bi ñuy xëccoo. Mhm. mais am na feneen foo xam ne itam foofu metti na lool jamono ji muy Médina. entre mhm. Cheikh Ba Messi ak euh, Bamba Fall gis nañu démb Cheikh Ba génn na nee na sondage yi ñu def dañ koy nëbb. Mhm. ndax buñ ko génnee ñu bari dañ naan lii mënta nekk te duma nañ Bamba Fall bu yàgg loolu tam foofu loo fay wax. waaw li ma la wax rek instant bi Sénégal mystique moo koy dawal. waaw li nga xam ne rek seet naa ko man. a ah, fi ma toog daal li ma la mën a leeralal. mooy ci Barthélémy Dias. xam naa ne ba ni ma toogeek yow di waxanteek yow. waaw ndam bi muy wër daal du am. amagu ko waaw mais rek fii ak ñaari fan ak suba xaw ma li xew. moo tax ma ni amagu ko. waaw mën na am rek. affaire ñu tourné ko. ñu tourné ndax macha allah dañoo am ñaan. ok waaw. mais ñeneen ñi moom seetuma wax dëgg neex yàlla seetoo ko quoi waaw mais bu Barth moom da koo seet waaw dama ko seet mais wëlbati naka la ñuy wëlbatee yëf comme kii moo waroon daan ñu wëlbati affaire yi ah bëri naa nit xam nga nit ku nekk li ngay liggéey rek nga mën a defee lu baax moom nga mën a defee lu bon hmm. waaw parce que tey bu wëlbati amul woon hmm. nit du jaaxle dem ci sëriñ na ko ndax doo ma ñaanal hmm. bu wëlbati amul woon kon jarul kenn di ñaanlu jaru ko waaw da ngay gis nit ki nekk ci dara euh, di bale da dem ci sëriñ na ko ñaanal ma pour man ma dem ba chefe ñi ok day dem ba chefe leen bu tasantee ku mën ñaan mm. kon ñaan lu mu mënul amut ok yàlla daa maye daal ok mm, muy lu am solo loo xam ne wax nga ko foofu beneen bi mooy Coupe d'Afrique yi ñu nekk sëriñ su bari ñu ngi génn di ci wax ñii naan dañ koy jël ñii naan duñ ko jël ñii naan dañ leen liggéey foofu tam doy na waar de soxna si. waaw Alioune man damay bëgg su ma waxee yow bu amee ngi ñëwaat. waaw man dama bëgg loolu neex na ma trop. Mhm. dama ne maa ngi wax li may wax ni dama bëgg ngeen koy dagg di ko teg. di ko teg pour en ñi nga xam ne dañuy weddi. Mhm. suñu bëggee coupe fii Sénégal. waaw ñu bëgg ndam ci Sénégal. waaw nañu dellu Tiwaawan. dellu Tiwaawan. jarul ñuy def sarax benn nañu dellu Tiwaawan dañuy am ndam. Tiwaawan kese boo ñoom ñëpp dellu mhm. Tiwaawan incha allah. maa ko wax man soxna Seynabou ndam rek la ñuy am. mais seen tànk bi bu ñu ko tegulee Tiwaawan. Mhm. gëw ma ko. ah lii moom jar nañu partagé ko tasaare ko. waaw gaa ko yi di ku ci bëgg ndam rek. Mhm. na nga dem Tiwaawan. Tiwaawan daraa ngi fa. waaw foofu moom du doon sax euh, dara ma nga fa macha allah. Mhm. waxuma ko waxu man taalibe Cheikh la mais dama ko wax que ñoom seen ndam foofu la ko yàlla tudd nañ delluwaat nañ dem Tiwaawan ñu xool. suñ fa demee yàlla xam na ne dañuy am lépp lu ñu bëgg. incha donc muy loo xam ne mbir mu nekk dafa am fu ko yàlla teg. ma nga noonu nañ ko dem jëli foofu rek jaru sëriñ yi di ñaan jaru dara. Mhm. jaru sarax jaru dara bu ñu tuur deret bu ñu def dara nañu dellu Tiwaawan rek. Mhm. incha allah yàlla dina defar lépp. kon sëriñ siy wax yëpp naan dañoo war a génne sarax ak dañoo yàq équipe bi genn sarax amu ci kenn yàqu leen. nañu dem Tiwaawan nañu dugg ci xabru yu baax yi nañu dugg génnaat après ñu xool. ah li nga wax nii dama gën a yenu maanaa li li ngeen wax incha man soxna Seyna bu man maa ko wax su dee lu yàlla maye woon nangu ko nañu dem Tiwaawan dinañu am ndam. kal bu leen xeeb wax bi may wax nañ dem Tiwaawan ñu xool ndam la ñuy am incha allah. incha muy loo xam ne lu am solo la ndax moo gën a yenu maanaa quand même nga bëgg jël équipe bi naan nañu génnee sarax. waaw bu doon sarax rek de <laughs> yaakaar naa ne mën naa leen ko def loo ndaxte ñi ma ci xam bëri na. Mhm. te it euh, ku ma ci wax sarax di nga ko def. incha allah mais xam naa ne nekkul loo xam ne jar na génne jarul gis génne sax biskit. ok waaw ñoom ñiy def daal nañu set wecc rek xam nga maytu sobe gu bëri gi te dem ci waawan kese ñu am ndam incha allah. lu am solo. leneen lu ñuy wax rek kon jeex na kon na Sénégalais yi dalal seen xel te ñoom itam ñu déglu sa wax jile day jéem a dem caawan seeti leen. Mhm. ndax mooy li ëpp solo euh, tudd nga lu am solo muy sarax. te gis naa nit ku ko fonk nga yow mii di wax nii. puisque mhm. gis nañ lu bari li nga ciy def euh, boo ñu doon wax ci sarax tey li ci li ci nekk ndax nit mën na ñëw nga génneloo ko sarax te doo ko sax laal yëfam yëfam baax. waaw parce que mën naa wax ne sarax luy fànk sax dee la. waaw tey boo demoon ci maamam. Mhm. mu xool la ne la yow de doo tane. Mhm. soo génnee bul jooy xamal na yéen ñaara yam bakken ca yàlla. génnal jënd sa ñetti mbusu ndox ñetti mbusu soow nga ñaan sa soxla nga saraxe ko. amaana ñàkkul ne di nga yar di nga yar benn animal sa kër. kooku la la waroon dal dal ko. sarax lu ne lay fànk ci àdduna. kilifa yu bari sarax moo leen fi bàyyi ba tey nit dangay saraxe. waaw surtout. am te jullit warul ñàkk jur ci këram. même bu dee ginaar da ko war a bàyyi sa kër boo amee ay njaboot. ndax lu war a ñëw ci yow dina dem ci jur ba te bàyyi la fi. Mhm. incha allah. Mhm. muy lu am solo nga xam ni comme ni nga ko waxee sarax dafay fànq dee. lu sax lu bari wax yeneent bi la. Mhm. donc du waxi nit kase kase yeneent bi moom lu mu wax yàllaa ko ko déy. ni ko wax ko. donc am na ñoo xam ne soxna na bu rab daf leen dugg mais ni mu leen duggee xamuñu ci yan anam la leen duggee ci yan circonstance rab ci yenn anam lay duggee doomi aadama. Mhm. des fois xale bi ci taaram lay duggee. ok di jur doom mu rafet trop mu leer na la ne xale bi am na màndargay bi nga xam ne nekkul ci yow mi ko jur. Mhm. dinga jur doomit mu të trop nga jéppi ko lool naan kii lan laa ko def. Mhm. ba tax lan laa def yàlla ba tax yàlla may ma ko mel nii. di nga jur doom mu judd ba mu nekk xëy suba tànk yi bañ. fekk na rab bi ko dugg am na doole ba mënatul téye tànk yi pour dox. rab kéemtaanu yàlla suñu boroom la ni muy duggee ci nit dafa doy waar tànk nit ki dund ko rek du ko xam ndaxte ñu bari dañu naan rab amul mais am na effectivement am na effectivement adduna bi lépp buñ ne buñ ne dara amut kiy dundal nit ci air kiy dundal yoo ci ngelaw kase mhm. di dundal ay weñ mën na mhm. dundal rab ak leneen ak leneen loo ah, xamut sax te suñu borom